muy mariage temporaire chia yi moo tax ku dëkk ak ñoom te am ay doom yu jigéen war ngaa tiit danoo am pas-pas bu ñu gëm mooy lan mooy nga droit dajeeg jigéen nga ne ko léegi dama la bëgg a takk tel terme yi nii jëfandikoo nag doone damaa bëgg a caaxaan de dama laa bëgg a takk pour deux heures de temps léegi ñaata laa lay jox can du ñaata laa lay fay de ñaata laa lay jox can mu ni léegi can bi dix mil la mais sama papa du yëg sama yaay du yëg kenn du yëg man ak la buñ ci d'accord yow it sa sa papa du temps wala benn fan wala ñaari fan après sëy ba jeex lii seen i ñi ngi koy def ba ci fii ci Sénégal nag ñu bëri ci ngi koy def am na ko taxaw RDV fëgg dënnam ni man def naa ko 18 fois yi ñoo ngi sant borom bi subhaanahu wa di julli ci yenente bi muhammad sallallahu alayhi wa di ñaanal sahaabam yu tedd ya ak képp ku fasu tenku ci seen yoon ba besim yàlla nañ ci yàlla boole gannaaw nuyoo lislaam bu ma jiital léegi ñoo ngi ma saw ñëpp ci tar bi comme imaam nu mu ko waxee sànq du ci suñu tooba coobare kon ci gàttal li ñuy njëkkee mooy woo benn xale mu ubbil ñu jotaay ji lenn ci alquranul karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعلمهم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل هدي الناس عنكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدر عليها وكان الله على كل شيء قديرا ولو ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديهم عنهم بمبني مكة بمبني مكة من بعد أن أغرقنا عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته li dem ci waxtu wi bari na waaye ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa mu defal nu tawfiq ak barke ci li des euh, du ñu ci guddal li ñu tax a toog fii mooy li wolof di wax xoddiku ca bala ngaa lakkale xoddiku xëy na nituk ndakaaru du ko xam waaye mooy boo dëkkee lu la nar a yàqal nga gaaw dindi ko bala moo agsi ci sa biir kër réew mi dafa mel ni joor gu nangu xam naa ba tey loolu nitug ndakaaru mën na koo bañ a xam suuf soo xam ne loo fa ji mu sax loolu la réew mi xaw a niru ku ñëw rekk woote lu la neex tudde ko lislaam fekk lislaam néewul ci biir lislaam dencaloo la li gën a fitnaal xeetu lislaam nag li gën a fitnaal xeetu lislaam mooy aaya yi ñu doon jàng ci sóoratul fat yi ca jeexintal ba ñi mel noonu mooy ñiy xas saxaaba yi di leen ŋàññi di wax ci ñoom lu ñaaw sunu imaam imaam malik ibn abi ibn anas malik ibn anas imaamu daaril hijra radiallahu anhu daan wax ne ñooñu aaya boobu mu li ko tax a jóg mooy rafida yi mooy asiha a rafida mooy ñi nga xane ne dañoo génn diine ba pare mbubb sol mbubbum diine pas-pasu diine newu fa waaye mbubum diine lañ sol di askanoo ci biir seenug yàq moo gën a metti yàquk yéefar ba ne ci biti ndax yéefar ba ne ci biti dañ koy xàmmee kon du ma guddal waaye jëmmi waxtaan wi li ko tax a jóg mooy ñu xam dëgg-dëgg sunu noon bu ne ci sunu biir di ñu yàqal ak fu mu cosaanoo ak seenu doxalin ak li mu mën a yàq ci lislaam ñu war leen a moytu gépp moytu ngir ngëpp ci sunu diine ju set ji nga xam ne moom la ñu yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyee gannaaw bi ko yàlla gërëmee hada wallahu ahlam di ñaan nag sunu borom defal tawfiq sunu mbokk al oustaz docteur Abdallah Baba Dieng tawfiq ba mën a def waxtaan wu leer bu doon te juróomi minute nañ ko déglu jariñoo ko ab leeral ko tax a jóg daf ñuy leeralal loo xam ne aman na maag yéen ci yam xamuñu ko sunu ko leeralalee ba mu leer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 ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di ñaanal jéggal ak kawe sunu yonant muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñuy am mbégte lool ak kontaante ñëw ci bërëb bi ci gox bi fekk fi suñuy mbokki jullit suñuy am di jàmm fekk fi suñuy kilifa rawatina cheikh al ustaz Mangor Ndiaye xafidahullahu wa raa ak yeneen mbokkin fi fekk ñoom Ibrahim Khalil ak ñim àndal ñépp ci liggéey bi ci góor ak jigéen mag ndaw muy mbégte bu ci ñun waxtaan bi mbokk yi ni ko al imam junje mu ngi aju ci benn kuréel bu ñuy wax ashia mu ni xoddi ko bala ngaa lakkale dangay jël sa matuwaay balaa mbir yi ni xës ci sa kaw dama yaakaar sax nag xaw na noo yeex boo moytul ba mbir mi ni xas ci suñ kaw ndax ñi ñuy waxtaanee te bu ñu duggee ci seeni pas-pas di nga xam ni ñii ñu day waar lan ñu yàq pas-pas lan ànd ak loolu ñu ngi ci suñ réew ñu ngi ci suñuy dëkk ñu ngi ci suñuy gox amaana sax amaana yàlla rekk xam ndax xawma waaye amaana sax seen gox bii sax am na ñu fi ne am na kon waxtaane ko lu jaadu la lu war la luy yàq di dem soo ko sàgganee rek bis dina ñëw bu bu la laalu lit laal sa njaboot kon ñooñu ñuy waxtaane muy ashia baat bi baatu arab la ashia comme ni ko ibnu faris waxee nee na ci ñetti araf la jógee muy shayaa waaye liñ ci jublu bu ñu waxee ashia baatu arab bi jëmmi arab bi maanaa bi mooy al atbaa wal ansar ñu la topp wala ñu ànd ak yow di la jàppale soo nee chiatu nabi sallallahu alayhi wa sallam fekk baatu arab bi rek nga ci jublu jubloo goo ci li may bëgg a waxtaane kon danga nga naan mooy ay saxaaba bu ne chiatu ali mooy ñi àndoon ak moom xëy na ca xeexu siffin ba wala jamal ba su ne chiatu muawiya mooy ña àndoon ak am na bi Sufyaan ca xeexu Siffin kon loolu mooy jëmmi baat bi waaye nag ci déggin léegi fii ñu toll nii nga xam ni chia léegi ab kuréel la ab mbooloo la bu yore ay pas-pas ñooy ñan ñu bëri xam la leen al imaamu zahabi ci misaanul i'tidaal xamale na leen njëkk moom cheikhul islam ibnu taymiya ci minhaaju sunna nabawiya xamle na leen njëkk moom al imam ahmad ibnu hambal xamle na leen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ashia ab kuréel la boo xam ni dañuy jaamoo yàlla ci ŋàññ saxaaba yi ak di wax naa naa neey ak di wax naa neey maanaam yazumuun di wax ni ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo topp waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñooy ñu topp Ali ibn Abi Talib ñoom ñooy ñu topp Xasan ak Xuseyn ak seen njaboot lii mooy chia ñaareelu wax bi nag moom du lu wér ñoom ñu sori Ali ibn Abi Talib lan ñu sori waa kër Ali ibn Abi Talib la parce que mënoon ni diw laay topp wala njabootam laay topp te ñoom fa ñu jaar jaaroo fa pas-pas ba ñu yore yoroo ko Ali ibn bi Talib ku ko topp topp Abubakar ku ko topp topp Omar ku ko topp topp Ousmane parce que ñoo bokk benn école benn université bi leen génnee muy bu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñooñu ñépp waaye yow waxtu wi nga xam ni yaa ngi jaamoo yàlla ci bëgg saxaaba yi ñoom waxtu woo la ni jaamoo yàlla ci bañ saxaaba yi kon loolu mooy kuréelu chia mooy ñi nga xam ni yataqarrabuuna ila allahi bi sabbi sahaba wa zaam bi annahum min atbaai ali ibn abi talib wa ahlil bayt ñoom kuréel boobu kañ lan sosu kuréel yu bari ci kuréelu yi askanoo ci lislaam da ngay xam kañ lan sosu seen taarix yee saa sax xam dat bi am na ci alxawaari nga xam ni keroog bi Siffin jeexee ñu ni léegi nañu def dialogue euh, Ali yónni Abu Musa al-Ash'ari Muawiya yónni Amr ibn al boobu lan génn dem Xaaruura yeneen kuréel yi da nga xam lu mel al-Mu'tazila bi euh, Waasil ibn Ata génnee ci al-Hasan al-Basri maanaam xam kañ la sosu mais bii ñuy waxtaane dañu dafa luusha luusha luusha luus ba kenn mënu laa wax ne la bis sàngam la ñu sos am na lu ko waral nag am na lu ko waral maanaam ñoom tëbuñu rek sosu nii mais ay pas-pas lay dem ba benn moment benn pas-pas feeñ ñu jël ko boole leen ñu dem ba mu yàgg leneen feeñ ñu jël ko leneen ba mu yàgg yeneen feeñ pas-pas yooyu nag moo dem ba nekk ay pas-pas yu bëri ñoom ñu fas ko ñu xame leen ni nag nit ñi ñooy chia yi moo tax mel ne Cheikh Nasir al-Qifaari ci usulu i'tiqaadi al-chia al-isna ashariya loolu la wax nee na ñoom ma nacha'at marratan bi marahil dafa jaar ci ay étape bi yu njëkk yi sax mën na leen a bañ a xame mais xam na ni ñii ñooy wax lii ñuy dem di dem mbir yi di dugg njaxas bi di ñëw ba mu mujj nekk benn kuréel bu yore ay pas-pas mais li nga xam ni moom sikk sàkk amu ci mooy mbalit yooyu ñoom ñu doon dajale muy seeni pas-pas fa mu njëkk a tàmbalee ki njëkk a tàmbali lu demee noonu te ba muy tàmbali taxul ni ñun ñooy kuréelu chia déedéet ka njëkk a tàmbali génne xalaat yi nga xam ne tey jii moom la chia yi yore kooku mooy Abdullahi ibnu Saba Abdullahi ibnu Saba al-yahudi al-ximyari al-yamani Abdullahi ibnu Saba ab juif la bu dëkk Yaman bokk ci giir gu ñuy wax ximyar noonoona ak lislaam ci waxtu wi nga xam ne lislaam am na doole mënu koo xeex ci biti mu annoncé ni jullit la dugg ci biir pour mën a jaxase ci biir dugg ci biir ci waxtu wi nga xam ni nag rëng-rëng amoon na ci biir jullit ñi muy ci feexelaafatu Usmaan ak ci njalbeenu xilaafatu ali ibn abi taalib mu tàmbali nag di jaxase rawatina ñi gën a sori makk ak madina parce que màkk ak madina wala saxaaba yi nekkoon mais ñi nga xam ne ay tuubeel lañu woon jeexantal ci ñoom day yomb foofu la tàmbalee tàmbali génne pas-pas boo nga xam cheikh yi ba léegi dañ koo gëm li ñu tuddee alwasiya yu ñuy yonent bi sallallahu wa sallam ginnaaw moom kenn rek moo war a nekk xalifa mu valable mooy Ali ibn Abi Talib ñuy dem ba mu yàgg mu dugal ci ñoom ni sax Ali mi ak yàlla la dem ba convaincre ci ay nit ñu naan ñu naan ko anta anta huwa huwa Ali ibn Abi Talib bi mu demee ba yëg loolu nit ñi lu ñuy wax ñu nit ñi de nee na yow yàlla nga mu ni subhanaka hada buhtaanun dajale leen tere leen ko ñu gën caa continuer mu rey ñam ca mën a rey lakk leen keroog bi Abdullah ibn Abbas ñëwee daf ne ko su ma fi nekkoon di nga leen rey mais doo leen lakk parce que la yu'adhibu bin naari illa rabbun naar wax ji boo demee ci fathul baari sharhu sahih al bu alxaafis ibnu xajar al asqalaani abul fadl di nga ko fekk ci bunt bi mu tuddee kitaabu istitaabatul murtadin indi na ci xissa bi nii ak ni leen Ali ray ak ni mu leen lakkee yëpp mais bi mu lakkee ni ñenn ñim ci mën a lakk nga xam ni xalaat yi ñuy yoree Abdullah ibn Saba moo ko dugal ci ñoom ki réer nga nga ko lii mooy li am boo ko doon daggate sax day jàpp loolu mooy li am fekk fekk ka la ca dugal moom xam na ni moom lii amut moom fële lay taxaw mais moo la cay bëmax keroog ba ñu yégee ni ali ibn abi talib radiallahu taala anhu eh, am na ñum ci ray ba lakk leen ñeneen ñi danoo ne alhamdulillah lii nag mooy gën a wane ne kon moom mi mooy yàlla parce que bu dul woon yàlla du ñemee lakk noonu muy continuer rôlam dem na ba ali ibn abi talib sax gaañu radiallahu anhu mu dugal ci ñoowaat beneen xalaat ni leen ali faatuwul dafay dem di ñëwaat lu ñu tudde tanaasuxul arwaax mais parce que yàlla moo ne inna alladi farada alayka alqur'ana la raadduka ila maad ki nga xam ne moo wàcce ci yow alqur'an farataa topp ko yàlla subhaanahu wa taala lim jubluwoon ci laay boobu mooy kooku dina la delloo si waat màkka gi nga génne li mooy tafsiru laaye ji mais nan la ko taawiile nee na laay bi la muy firi mooy ki faat Ali moo koy moo koy dekkalaat ca àdduna kon dañuy jàpp ne Ali faatu xalaat yi noonu la tàmbalee ci waajooju waa jooju nag ahlu sunnati wal jamaa saxal nan ko ku mel ne ibnu kathir ci al bidaya nihaya ku mel ne ash-Shahristani ku mel ne ibnu hazm ak ñeneen ak ñeneen ñeneen ci ahlu sunna ñoom ñëpp saxal nan waa ji mooy ki njëkk a tàmbali génne pas-pasu chia yi mais yemul ci ñoom rek chia ay ci seen bopp reconnaître nan ni kin mën a wax ni moo njëkk a tàmbale génne ñoom pas-pas yi nga xam ni mooy yin war a fas mooy Abdullah ibnu Saba ñoom nag du ni yahudi yi da naan Abdullah ibnu Saba al yamani al danoo jàpp ku baax la mi ngi mel ne abu lulu al majuusi ñun ñooy wax abu lulu al majuusi mooy ki rey ibn al mais ñoom dañuy wax baaba sujaa aba loolu moo tax dañ koy màggal amal nañ ko sax bis buñ koy gàmmool fexe nan ba ca eh, ca Iran Mashhad wala Kashani ñu defal ko fa benn xabru boo xam ni eh, dañ fay dem di ko ziyaar donte xam ngeen ne tëddul foofu mét bi mu reyee Omar ibnul Xattaab Medina lañ ko rey sànni ko ci seen yi ba muy waaj a yàqu ñu gas suul mais ñoom créel nañ ko benn xabru bu mag ta wax ko def ci ay millions dem di fa ziyaara di jooy parce que kooku mooy ki rey Omar ibnul kon dañ ko war a màggal kon chia ay ci seen bopp saxal nañ ni ki njëkk a tàmbali feeñal seeni pas-pas muy Abdullah ibnu Saba kooku an nu wax na ko ci firaqu chia te an nu bax ci ñu njëkk a taalif ci chia la bokk moom mu bokk ci kàngamu chia yi ginnaaw loolu nag dañu dem ba mu yàgg rek am pas-pas bu dugg chia yi jël ko def ko ci seen boole ko ci seen pas-pas masalan tey lu deme ni euh, dem ba ni euh, diw mooy nekk imaam ginnaaw baayam ñuy dem ba mu yàgg ñu ni daal imaam yi fukk la ñu war a nekk ak ñaar moo tax gàgg gàgg bi ñu am sax bi ñu ñëwee ba ci euh, musal kaadib muy doomu jaafaru saadiq ñu ni doomam bu mag moo fi mooy toog far kooga faatu am na beneen tàqalikoo boo xam ni nekk na ca ñoom ñii ni euh, al ismailiya parce que moo waroon a toog mais dafa làqatu ñeneen ñi déedéet Muhammad doomam mooy toog muy beneen pas-pas bu dugg nooñu la dem ba alxasanul askari faatu 255 ci seen yenn riwaayaat ñu ni 254 ci seen yenn riwaayaat ñu ni 256 te bàyyiwul benn doom am ba beneen pas-pas boo xam ne dugg na ci chia yi ñu ni déedéet kii bàyyi na doom mais doom jooju Muhammad la tudd ñu ne ko tuddee Muhammadul euh, al euh, mahdil muntazar anamu ñu ni dafa judd rek nekk riir bu tooy xepp ñu làq ko ci benn xunt ba bu nekk ci Samoura ca Irak mais dina génn ci aaxiru zaman yeneen pas-pas tàmbaliwaat génne foofu dina dugg ci seen pas-pas yi kon li ma bëgg wax foofu mooy chia yi dañuy dox ba mu yàgg jamono ñëw rek benn mbir am ñu for benn mbalit def ko seen pas-pas noonu la demee di dem di dem ba pas-pas yi ñu am yépp ñu yore te dinaa ci tudd tey ci waxtaan bi fukki pas-pas yoo xam ni bu ci nekk rek ab mbalit la boo xam ni chia yi dañ koy gëm waaye mbokk yi ginnaaw bi ñu xamle chia ginnaaw bi ñu xamee seenug sosu ginnaaw bi ñu xamee kin mën a askanel ni mooy ki njëkk ki tàmbali feeñal loola yan mooy seeni kuréel ndax booy waxtaan ci chia il faut nga jël benn kuréel chia yi dañoo bëri ëpp nañ juróom-ñaar fukki kuréel di reyante ci seen biir di noonante ci seen biir bal ku mel ne euh, kenn ci ñoom ñu koy tu wax euh, addaamaadi moom bi muy tudd seeni kuréel yi dafa nii hadis boobu yonent bi wax nii sama xeet dinañ tàqalikoo juróom-ñaar fukki pàcc ak ñett ñoom ñëpp dañuy jëm safara des benn mu ni kuréel yooyu yépp kuréelu Shia juróom-ñaar fukki ak ñett yépp kuréelu chia la mu ni nag yooyu yépp day dem safara benn moo cay mucc muy ashia al isna achariya mooy moom bi mu bokk yeneen chia yeneen kuréel chia yépp nee na safara lañ dem léegi ñun ñun fan la ñu dugal comme ñun bokkuñu ci juróom-ñett fukki yaak ñett ñun ahlu sunna ci juróom-ñaar fukki yaak ñett ñun fan lan bokk ñu ne seeti leen seen bopp ca yahud yi ak nasaraan yi mais yéen duggoo leen ce ummatu daawa bokk leen ci ummatu al ijaaba mais ci ummatu daawa ngeen nekk kuréel yooyu nag dafa bëri lool mais bi ñuy waxtaane tey war a wax ci seeni pas-pas mooy al chia al isna achariya chia al am nañ ay tur yu bari bu la nee man chii isna achar yi la jàppal su la man imaam yi laa jàppal su la man jaafar la laa jàppal yooyu yépp ci seeni tur la ñoom ñooy tuddee seen bopp al imaamiya ñooy tuddee seen bopp al jaafariya ñooy tuddee seen bopp al isna achariya ñu tuddee tamit seen bopp ashia lu tax ñu tuddee seen bopp al jaafariya parce que dañuy askanoo ci jaafaru sadiq jaafaru sadiq mooy doomu Mouhamadul Baqir Mouhamadul Baqir mooy doomu Ali Zeyn al Abidin Ali Zeyn al Abidin mooy doomu Xusayn ah, ah, Xusayn mooy doomu Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu ñu ni ci moom la ñuy askanoo njàngam la ñuy jël te jaafaru sadiq fa mu jaar ak ñoom fa ñu jaar comme yàlla ak yàlli Jaafaru Saadiq ci kilifay ahlu sunna wal jamaa la bokk nekkoon xariinu Abu Hanifa ñoom ñaar presque ñaari at lañu ñu rawante ci faatu Jaafaru Saadiq 148 la ci gàddaay gi Abu Hanifa 150 la faatu ci gàddaay gi Jaafaru Saadiq ci pas-pas ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xallaloon saxaaba yi ñu jàngal ko ñu ñëw seen ginnaaw ñu jàngal ko ñëw seen ginnaaw foofu la tegu woon kon ñoom dañ koo mbubboo rek mais sori na leen lu tax ñu tuddee seen bopp al imaama wa parce que dañoo jàpp ni imaamatu ali ali nekk imam ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sans aboubacar ñu ni loolu ponk la ci ponk lislaam yi lu tax ñu tuddee seen bopp al imamiya tuddee leen seen bopp al chia al isna achariya lu tax ñu tuddee seen bopp Cheikh al Isna Achariya parce que danoo wax ni bi fi yonent bi jugee ba àdduna di tukki fukki nit ak ñaar dong ñoo fi war a nekk xalifa ñoom dong ñoo war a wax ci diine ji ñu déglu seeni wax fukki ñoom ñaar ñooñu xanaa bu xel selloon sax mën na ne kon su fekkoon ne loolu am na fukki ak ñaar kon xanaa kon mooy Aboubacar ak Omar ak Ousmane Ali tàmbali di lim saxaaba yi ñu la déedéet Aboubacar bokku ci Omar bokku ci Ousmane ci ñu tudd Ali ibn Abi Talib tudd Xasan doomam tudd Xuseyn doomam pare bàyyi doomu Xasan yi fële continuer ci doomu Xuseyn yi ba àgg ca fukkeel ba ñaar ba parce que après Xuseyn Ali Zeyn Abidin Mohamed al Baqir Jaafar Sadiq Moussa al Kadib noonu lañ ko continuer ah ñoom Jawaat Rida Hadi ba Xasan al Askari ci kuréel bii nag lan war a waxtaane kuréel bi ñooy lëmbe àdduna kuréel bii ñooy jaxase jullit ñi kuréel bi ñoo nekk fii ci Sénégal kuréel bii ñooy ne ca Iran bu Khomeini kuréel bii ñoo nekk ci Liban bu Hassan Nasrallah kuréel bi nga gis ci biir Afrique ñu jéem a fexe génne jullit ñi ci seen pas-pas bëgg saxaaba yi yóbbu leen ci bañ saxaaba yi kuréel bii ñoo nekk fii ci dakaar ñu ngi fiy ibbi seeni sant euh, di tabax seeni jàkka di propagande di ibbi seeni école di jaxase nit ñi malheureusement lu bari ci sénégalais yi jànguñu seen diine juddu nañ ci nag bëgg nañ ko di ko mbubboo di ci joxe sax nag bay jooy mais ñu ci bëri jànguñu seen diine folklore bi dong moo leen yóbbaale moo tax xàmmee wunu lu wér ak lu wérut la ñu xàmmee rek mooy bi ma juddoo daal li ma fekk samay baay ak samay maam nekk loolu ngay xam mais doo dem di jàng sa diine ku mel noonu nag jaxase ko day yomb ku mel noonu jaxase ko day yomb kon ñi ngi fi bu leen jàpp ni mukk ñi ñuy waxtaanee ay naar lan yu nekk ca fële wala ñu nekk ca réew perse ya déedéet fii ci sunum réew ñoo xam ne lu làkk bi ngay làkk ñi ngi koy làkk juddoo fi yaroo fi ba pare yore pas-pas yooyu li ci jaxase nit ñi pas-pas yooyu ñu yore nag mooy yan lii ma war a tiital ab jullit tey suñu waxtaanee ci seeni pas-pas di nga gën a tiit nii ñii nekk fii walla ñu jege ñoo wala sax boo moytu sax ñu ñuy demanteeg ñoom di ñëw naka la ñuy def ak ëllëg ak suñu njaboot ñooñu seen pas-pas bi ci jiitu mooy dañoo gëm ni alquranul karim matul alquran bii ñu topp nga xam ne laa yaatihi albaatilu min bayni yadayhi wala min xalfi alquran bii nga xam ne ba yàlla di tàmbali salaf ni dalikal kitaabu ñëpp ne ah mu laa rayba fii amul luñ ciy sikki sàkk ñoom ñu ne alquran bi matul lu ëpp ñaar fukk ak juróom ci seeni kàngam yu mat yu mag wax na lii bind ko ci seeni téere alkulayni muy Muhammad ibn Yaqub alkulayni wax na ko ci téeram boobu mu tudde alkaafi nee na ñun alquran vrai bi ñu gëm sabaata achar alf aaya la dix mil mille moo ci nekk wa laysa fiihi min quranikum xarfun waaxid nee na ñoom bi ñu gëm dix-sept mille aaya la te ñun alxuraan bi ñu yore ñaata aaya la six mille et kon am na lu ko lu ko duubul loo xam ne gisuñu ko am na ci ñoom ku taalif benn téere boo xam ni muy at tabarsi nuuru da ko tudde faslul xitaab fi isbaati taxriifi kitaabi rabbil arbaab téere bi mu ni dama ci leeral taqale ci lu leer naññ luy wone ni luy saxal ni alquran bi matut mu indi ci nee na junni dalil junni tegtal ak téeméer ak fukk ak benn bu ci nekk di wane ni alquran matul léegi kan moo ko wàññi yonent bi xanaa du ko wàññi sallallahu alayhi wa sallam ñu ni ñi ko wàññi mooy Aboubacar ak Omar ak Ousmane ak Aïcha ak Hafsa ñu ni ñii ñoo ñëw gis yu ci bokk yoo xam ni dafay euh, wone nga neelu Ali ak waa këram ñu dind ko ñu ni am ay aay yoo xam dafa doon tudd Aboubacar ak ñoom Omar di leen ŋàññi ah tudd ñoom Aboubacar ak ñoom Omar di leen ŋàññi ñu dind ko ñu ni tamit ñu yokkaat ci yeneen yoo xam ni bokk ci muy pas-pas boo xam ni lu ñu gëm la ci seen biir xol waaye soo leen nee ana téere boobu ñoom nag danoo mën a taqiya taqiya mooy danoo mën a jëfandikoo ak naafeq di ci ñëw léegi mu ne la non maanaam su fekkee ni gis na ni euh, jaww ji wonewul pour mu leeral la pas-pasam boo ma dina leen déedéet ñun loolu kiiwuñu ko lii la ñuy yore lu ci dul ñoom ñu toog seen biir wala sax mu toog ak yow nga xam ni ragalu la mu ni la fi'lan loolu mooy li am seen alxuraan bi matu mais boo leen ne ana alxuraan bi mat génn leen ko te njaal benn nga ban tàmbalee di wax loolu ban leen ne génn leen ko danoo tàmbali di di indi ay misaal naan la am na saar bu tudd sóoratul nuurayni am na saar bu tudd sóoratul wilaaya saar sàngam ni nin wax ni noonu la wàcce wàccewul noonu alam nashrah laka sadrak wa wadana anka wizrak ñu ni déedéet alam nashrah laka sadrak wa wadana anka wizrak wa anna aliyan sahrak ñu ni noonu la wàcce yaa ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ñu ni wàccewul noonu yaa ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka fi ali fa in lam tafal fa ma ballaghta risaalata di indi ay misaal yoo xam ni nit ñi dañ leen ciy gën a xeeb parce que alxuraan moom mënoo tappalee tappalee tappale ba indi lu mel na moom benn saar ba ca gën a gàtt sax mënoo indi lu ni mel même boo woowoon ñu bari tey ñu jàppale la walaw kaana baaduhum li baadin zahira ñu xam ni loolu jëmul kër nit mën na def léegi article nga toppandoo ko bu neex keneen waaye alxuraan mënoo indi lu ni mel ñu indi benn pas-pas bu ñu tuddee albada wala euh, déedéet ñu indi benn pas-pas boo xam ni dañ koo aj ci mahdil muntazar ñu ni vrai mushaf bi jox nañ ko al mahdil muntazar kooku nag aaxiru zaman la koy indi su ko indee téere yi fi nekk dañ koy lakk mu doogay jëfandikoo boobu ñu ne leen waaw kon léegi yéen lu ngeen di jaamoo yàlla seen benn kàngam tontul leen ku ñuy wax ni'matullahi aljazairi ci téere bu mu tuddee al anwaaru nomaniya boo demee ci al anwaaru no ñoom mul nañ ko ñet ñetti tom man mii wax am naa téere bi ci biir téere bi mu ni yaakaar naa ci tom 2 bi la page 82 bi mu waxee ni alquran bi ni ko ñoom Aboubacar ak ñoom Omar euh, fawee ba yàq ko dind ci lu ci bokk jaxasa ci lu ci bokkul bi mu paree loolu wax ci ba géex mu ni waaye nag yéen buñ leen laajee ni leen léegi nag bal alxuraan ngeen yore bu boobaa tontu leen ni alquran bii ngeen yore yéen yéen al awam awam buñ ko xam mooy ñeneen ñu dul chia alquran bii ngeen yore ñun moom la ñuy yoree ndi ba mahdil muntazar génn su génnee nag ñu ànd ak moom lakk yi jëfandikoo alxuraan boobu loolu prétexte la la lay la parce que mënuñoo indi beneen budul bi moo tax boo demee ci seen kër yi mushaf bi nga fay fekk mënuñoo dajaloo ba indi beneen budul bi te duñ ko mos a indéet mais nag pas-pas la boo xam ne dañ koo gëm ci seeni biiri xol bokk na ci seen pas-pas yi ñaareel bi mooy di ñi saxaaba yi di leen tuumaal di wax ci ñoom lu ñaaw noonoo leen bañ leen mbokk yi ñen ñooy saxaaba yi ñi daroon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñen ñooy saxaaba yi ñi yàlla gërëm xale bi jàng na ko léegi laqad radiyallahu anil muminina id yubayi'unaka taxta shajar ñen ñooy saxaaba yi assaabiquuna al awwaluuna min al muhaajirina wal ansaar ñan ñooy saxaaba yi ñi yàlla wax ni su ngeen gëmee ni ñu gëmee raw ngeen fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw ñan ñooy saxaaba yi ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne xayru nnaasi qarni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum ñi gën ci xeet wi mooy ñi ànd ak man samay saxaaba ñan ñooy saxaaba yi ñi yàlla tagge nu nekk ba ni muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffari rahamaau baynahum tarahum rokkaan sujjadan yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana ñan ñooy saxaaba yi mooy ñi abdullahi ibn mas'ud wax ni wala abdullahi ibn omar ibn alxatab abdullahi ibn mas'ud ak abdullahi ibn omar ibn alxatab kenn ci ñoom ñaar mu ni mooy ñi nga xam ni yàlla dafa xool xolu jaam ñi mu xool xool yi ca gën a sell mu jël leen def leen ay yonantam mu xoolaat ca xol yooya ba ca gën a sell mu jël ko def ko yonantu mujjantalu xeet wi mu xoolaat xolu xeet wi xeetam moom xol yi ca gën a sell mu jël leen programmer leen ñu war a dund ak moom pour gëm ko ñi nga xam ne ay tànneef lañ ci biir tànneef yi la chia yi wax ni ñoo gën a yées ci nit ñi la chia yi wax ni ñoo gën a yées ci nit ñi maanaam ni ñu noonoo Aboubacar Siddiq noonoo wuñ ko xaj bi dem noonoo wuñ ko juif ni ñu noonoo Omar ibn al ak liñ koy yàq boo duggee ci seen téere yi yow da ngay muñ rek di liir parce que da nga da nga ko ko war a xam pour leeralal ko nit ñi sinon doo dem lu ne nga cay fekk nii dem na ci kashful asrar dem ba ni Abubakar ni Siddiq maanaam amul woon sax ngor wal iyaazu billah nee na da doon sosal yonent bi rek mu ni day sosal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te kan moo ko tudde Siddiq yonent bi sallallahu alayhi dem na ci téeréem boobu kashful asrar mu ne Omar ibn al-Khattab zindiq la wa aqwaluhu nabighatun min al wa zandaq seen téere yi di ci dem bay ñuy tuumaal Ousmane Affan lu bon lu ñaaw ci borom ñaari tur yi wal iyaazu billah Aïcha mi nga xam ni soxna sallallahu alayhi wa sallam li chi ay di wax ci moom weñ wu ca dal abu abu hurayra mi nga xam ni lu bari ci hadis tey moo na ko jottalil kooku lu ne lan ko yekk dem na sax ba kenn ci ñoom mooy abdul husayn sharafu diinul musawi taalif ci moom benn téere tudde ko abu hurayra al muftari mooy abu hurayra narkat bi mu muawiya moom mooy seen doomu bàjjan mbañeel gii ñu bañ ñu bañ saxaaba yi pas pas la ci ñoom ma nga tàmbalee nag ca dëkku naar ya pas-pasee di tas ak ci réew perse ya waaye ñëw na ba ci sun Sénégal gi imagineel ab sénégalais ngay wax ak moom ci wolof wala beneen làkk yi ñuy làkk mu ne la mu ne la attention Omar ibn naa fekk la il faut ñu d'accord ci loolu man toog naa ci jataay fii ci Dakar xëy na al imam Aboubacar Seck am na ñu ko xam ci yéen keroog ma nga ca jataay ba xam naa ni musta dégg wax joojo wala da ko daa liir dafa ni ñeneen loolu ñu ngi ko defee woon parcelle maa ngi koy fàttali ca kër Cheikhouna Faye oustaz Cheikhouna Faye benn xale ci xale chia yi nga xam ni chia yi fii ñoo ko jàngal ci seen école yi ba yàq pas-pasam keroog bi ñu toogee ñuy waxtaan ñu pour laay bii leen dafa ni nag avant tout bu ñuy tàmbalee nañu nañu d'accord ni Omar ibn Khattab naa fekk la woon keroog imaam Aboubacar Seck dafa jooy jooy jooy jooy jooy bay a yàq waxtaan bi noonoo gi ñu noonoo saxaaba yi foo ko yaakaare weesu na ko xam naa ñetti sénégalais kenn ki Aboubacar la tuddoon Aboubacar Touré kenn ki Adama la tudd Adama Nangam kenn ki Omar la tuddoon Omar Ka ñii ñëpp seen baay tur yi lañ leen tudde tur yu baax abu Aboubacar ak Omar waaye ku ci nekk ci ñoom bi nga toppee chia yi mënatoo woon digérer tur boobu da nga koo changé tudde sa bopp naneen Aboubacar ba dafa tudde boppam léegi Yaxya am na ci ku tudd euh, ku tudd keneen ku tuddoon Aboubacar moom ba mu duggee ci chia yi dafa tudde boppam aadama am na ci keneen ko xam ne Omar la tudd ci seen école bi fii la jànge fii ci euh, dakaar ñuy toj bopp bi may ko bourse yóbbu ko Iran ba mu eggee mu changé turam tudde boppam Khomeini Ka parce que fekkee ni ci miir yi ñu ngi ci saaga Omar boo toogee ci biir université yeeg ci biir ki ñuy wax ci Omar yu bon ak yu ñaaw yow nga tudd Omar da ngay gêné wu wu ñoom foofu la ñu foofu lañu ñu yow yaay xëy naan Aboubacar rahimahu radiyallahu anhu ñoom ñuy xëy naan Aboubacar wa Omar laanatullahi alayhima wal iyaazu am na ñaan boo xam ni ñaanu sanamay Quraysh lañ ko tuddee ñaari xërëmu Quraysh yi kenn lañ jublu ci xërëmu Quraysh yi Abubakar ak Omar ñooñu nga xam ne ñoo gën ci xeet bi yonente bi sallallahu alayhi wa ba mu demee bay fatt bunt yi sar ñëw ci jumaa ji sax dafa ne fatt leen yëpp ba mu des bu Abubakar yonent bi taxaw ni law kuntu muttaxidan xalila la taxasa Ababakarin xalila su ma demoon bay tànn xarit bakar lay doon yonent boobu moo dem te biir kër Aboubacar mu takk fa doomam Aïcha yonent boobu moo ko tudde as-Siddiq yonent boobu moo wax ci Omar ibn al ni ko foo jaar seytaane day teggi jaar waneen yoon yonent boobu moo ne Omar ibn al-Khattab kenn ñemewu la naafeq du la ñeme yonent boobu moo dem kër Omar ibn al mu takk doomam Hafsa yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam moo ne Aboubacar yow ci waa ajjana nga yow Omar ci waa ajjana nga yow Ousmane ci waa ajjana nga yow Ali ci waa ajjana nga tuddaat yeneen juróom benn muy fukk ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni tudd na leen ci yeneen hadis ba muy ñaar fukk ak juróom benn yàlla ñëw moom maasel lépp ni saxaaba yépp waa ajjana lan ñoom wa kullan waada allahu alxusna laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi wa qaata ulaika aadamu darajatan min alladina anfaqu min baado wa qaatalu waaye wa kullan waada allahu alxusna yàlla nee na ñi la daroon yow yonente bi ñoom ñëpp waa àjjana la donte mën na noo gënante mën na noo rawante mais ñoom ñëpp waa àjjana la ñii la chia yi dëkkal ci euh, bërëb yu ñaaw yu bon yi moo tax cheikhul islam ibnu taymiya ci minhaaju sunna an nabawiya dafay wax ni soo woowoon yahud yi nga ni leen kan ñan ñooy ñi gën ci xeetu yahud dan naan la ñu àndoon ak yonent yàlla Moussa nee na nga dem ci chrétien yi nga ni leen ñan ñooy ñi gën ci yéen dan naan la alxawaari yéen ya àndoon ak Isa nee na boo ñëwee ci chia yi nga ni leen ñan ñooy ñi yées ci xeetu Muhammad ñu ni la ñu àndoon ak moom lii tuumaal yonent bi la sax sallallahu alayhi wa njëkk ngay tuumaal saxaaba te lii mooy seen pas-pas xëy na mën ngeen a fàtte wala ñàkk koy kuy fàttali ko tuuti ci ay at yu yu yu bëriwul dara ci 2STV yi jamono jëfa mati leen daan mati trois pommes amee émission ma benn chiite boo xam ne ab sénégalais la mu taxaw ni Omar nii la ko waxee Omar ibn al-Khattab ak moroomi commando bandéem ñoo ànd dem kër Ali ibn Abi Talib baray Fatima ab chiite boo xam ni ab sénégalais la dëkk am na ci keneen koo xam ni te ñooñu nag euh, yeesa yenn centre yenn école yoo xam ni am na chiite yee ñoo fa nekk maanaam di ronkat ndànk-ndànk ci doomu koñ ba di def seeni xalaat ci ñooñu lañ koy jëlee fii ci Sénégal am na ci keneen koo xam ni publiquement la taxaw mu ni ñaar fukki at ak ñett yi fi yonent bi nekkoon di tabax ak di defar dafay jóge ñaar fukki at ak ñett topp ci ñi ñëw ci ginnaawam doon yàq ñaar fukki at ak ñett yooyu kan la ci jublu Aboubacar Omar ak Ousmane muy ñaari atu Aboubacar yi fukki atu euh, Omar yi ak fukki at ak ñaar wala lu jege ñaar bu Usmaan ibn Affaan yi kon ñii pas-pas yi leen am ci ñoom gisalul leen ak mbaax lu ñaaw lu bon rek la ñuy wax ci ñoom am na benn téere boo xam ne ki ko taalif Najaaxu Taa'il la tudd mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi dund Angleterre Abu Bakar lam yakun ma an nabi fil gaar noonu la ko tuddee maam ka nekkoon nag yonent bi ca xuntuma mu ni du Aboubacar kaneen la woon ku ni tudde Aboubacar waaye du Aboubacar ngir rek iñaane Aboubacar loola thani ithnayni idh huma fil ghaar mu ni déedéet mu ni du Aboubacar ni Siddiq kon loolu mooy seen pas-pas ci saxaaba yi beneen pas-pas mooy almutaa muy mariage temporaire chia yi moo tax ku dëkk ak ñoom te am ay doom yu jigéen war ngaa tiit danoo am pas-pas bu ñu gëm mooy lan mooy am nga droit dajeeg jigéen nga ne ko léegi dama laa bëgg a takk gisal terme yi nii jëfandikoo nag doone dama bëgg a caaxaan de dama laa bëgg a takk pour deux heures de temps léegi ñaata laa lay jox can du ñaata laa lay fay de ñaata laa lay jox can mu ni léegi can bi dix mille la mais sama papa du yëg sama yaay du yëg kenn du yëg man ak yow rek la buñ ci d'accordé yow it sa yaay du yëg sa papa du yëg ñu d'accord ci mu jox ko can dix mille ñu dem wut seen oberge wala seen nangam deux heures de temps wala benn fan wala ñaari fan après sëy ba jeex lii seeni pas-pas la te ñi ngi koy def ba ci fii ci Sénégal nag ñu bari ci ñoom ñi ngi koy def am na ko taxaw RDV fëgg dënnam ni man def naa ko 18 fois ab sénégalais ba pare di jàngale ci suñu école yi loolu doo tiit parce que ñoom dañ ci am pas-pas buñ ci am danoo ni ku def mutaa muy mariage temporel benn yoon am ngay am nga maqaama Xuseyn ku ko def ñaari yoon nga am maqaamay Xasan ku ko def ñetti yoon am maqaamay Ali ku ko def ñeenti yoon am maqaamay yonent bi bu àggul ci nubuwa waa kon ku ko def juróomi yoon na xanaa kon yàlla ngay am maqaama maanaam di njaaloo di ci am tuyaaba may faat la ko xawma ban at la ci at ci ginnaaw Sidi Lamine Niass rahmatullah alayhi bi fi kii bi jugee si ay tàmbali di ko tasaare naan dagan na dara nekku ci ah loolu buñ ko doon def sax dina tax eh, njaare bi wàññeeku yow soo gisee kenn nga wax ak moom ah nga takk ko deux heures de temps wala nga takk ko benn journée après mu jeex amul du doon kenn du ci charte ndeyam di ko yëg wala bàyyam di ko yëg si demin da ci organiser benn débat ci diineeg jamono keroog man mii maa nga ca woon mu invité benn cheikh boo xam ni sikkim ba ma nga weex tàll toll fii seenu mbonte dinañ tasaare ak mbonte te ñoom duñ bëgg ñoom yow nga def ko seen doom ñoom ñoom kay nan dem di ko def ci doomu jàmbur yi di mutta ak ñoom di def ak ñoom mala temporel di njaaloog ñoom wala iyas billah waaye bëgguñu ko ci seeni doom keroog maa ngi fàttaliku ci biir débat bi avant ji ak fexe naa ba xam moom ñetti doomam yu jigéen nanga ne fa seen Cheikh bi ne Ahmed lii mii fi ba léegi fii Dakar muy défendre mbir mi ma ne ko waaye léegi li ngay défendre ma tuddal ko yenn chia yoo xam ñi ngi fii ci senegal mu xam leen ñu ay euh, gaayam ma ne ko bu Chérif Mbaalo ñëwoon fii nii la damaa bëgg nga may ma sa doom Fatima te al ñu benn néeg ci sa kër gi pour deux heures de temps su ma paree après sëy bi jeex su pare Ali Badiane ñëw ni la damaa bëgg nga al ma sa doom Sakina damaa bëgg a def moom mariage temporaire pour deux heures de temps suñu paree ñu tijji bunt bi ma dem sëy ba jeex euh, taaxa sugu ñëw ni la damaa bëgg nga kii ma sa doom diw deux heures de temps ndax loolu di ko nangu yow ci say doom sa soxna toog ñëpp toog ñii ànd ak jàpp ci loxo dugg ci néeg tëju fa deux heures de temps génn xam na ni mënu koo tont bu bëgg a de débat bi mu tàmbali def ko xuloo yéen da ngeen ne yaradiku nangam nangam waxal sa wax rek te bañ a nangam nga xam ni li ñuy wax ñoom dañoo bëgg a yàq keneen mais pas ñoom su fekkoon ni gëm nañ ko mais danaan la waaw man kay boo ñëwee jox ma misaal nii euh, sa doom est-ce que bu ko diw ñëwee bëgg koo takk man la bu jaaree ci sunna mu problème ma may ko ko ñoom ñaar ñoo xam ne ñuy def du ma ci mer kon lu tax muy mer ci mm, may ma ko deux heures de temps après après mu jeex parce que xam na ni ak ak kàccoor la amul lu ko wuutaleeg jigéen ñiy jaay seen bopp te ñoom bis bu nekk ñu ngi ciy xiirtal xale yi ba ci seen école yi ñu ibbi ku fa sa doom nekk na nga xam ne mi ngi ci danger parce que bu demee ba def ci loolu seen bopp xale bi waxtu yu muy jànge bu doon quatre heures temps lay def wala ñetti cours ñeenti cours mën na noo def ak moom mu taa benn cours xale ba ñi da nga naan jàngi na wàcc na parce que dem nañ ba def ci moom bopp bi loolu wallahi alladi la illa huwa xam naa xale bu jigéen boo xam ne Thiès gii la dëkkoon ba mu demee ba am bac te mu ngi doon jànge euh, ma euh, alaaj Malick ba am fa bagam ñëw ci ay ibbi woon fii ci boori mbaaw fu ñuy wax kulliyatul xasanayn mu ni dafay dem mbokk yi nekkoon Thiès ni ko bu fa dem mu ni non man mënuñoo yàq sama pas-pas waaye gis nga ba mu fa demee ba mu fay jóge solul daal xëy na yàlla ko defal sax tawfiq mu teel a daw parce que nee bis dafa doon jàng wàcc mu am cours boo xam ni pareegul woon toog di bind mu ni diw tudd koo xam ne man xam naa ko ci ñoom la bokk ci cheikh yi nee na ñëw ni ko dama bëgg ñu def mariage temporaire tàmbali di ko di ko kii nee na boobu laa gëj ca école ba waaye damay faral di wax ni chia ay seen mariage temporaire boobu seen motaa moo gën a yées jigéen jiy jaay boppam ci mbedd mi xam nga lu tax jigéen jiy jaay boppam ci mbedd mi defu ko fàng même bu koy bu koy manifester tamit boo xool ci biir xolam am na kersa moo tax ñu ci bari dañuy bàyyi ba guddi ñu sol seen lu bon nekk ca mbedd ma di ko nëbb di ko làq ka koy def boo ma sax bu dee Dakar la koy def faneen lay dëkk boo demoon ba ne ko yow lii lu la ko yóbbee danaan la topp bakkan wala mu ni la man xawma sax lu ma ko def loo wala mu ni la nangam. du nangu ak baaxam du nangu baaxam mukk mais chia yi boo leen laajee ni leen yéen lii ngeen di def ak jigéen ñi wala yéen jigéen ñi lii ngeen di def ak góor ñi lu leen ko yóbbee ñu ne la yonent bi moo ne ko sant. wala iyaazu billah yonent bi dina sant nit mu dem ci njaal lii seen pas-pas la mu ngi ne xas nag ci chia yi ak ñi dugal seen doom yi ci chia yi ak ñi nga xam ni ñi ngi yore pas-pas boobu euh, mos naa seeti yenn xale chia yi ci benn école chia yi ma dem ba ci biir école ba keroog man ak ñoom ñoo yendu ñuy def maam ay débat parce que boobu xam naa ni ñii ñu ci bëri ci ñoom lii ñu nekk sa xamuñu ko walillahi alhamdu tamit jur nay njariñ parce que ñu bëri ci ñoom génn nañ ci am na ci ko xam ne après ne woon oustaz walaay gis nga bunt bi ñu nekkoon ba am ci boo xam dana nekk ci ma mariage temporel mu ni lii ñun dañ koy gis toujours mu ni xoolal bis bu nekk jigéen ñi ñuy kii ni di dugg bureau bureau mudir bureau directeur bi tëju fa mu ni ñun ñun élèves ak étudiants yi sax bu kii dañuy wokkante ni tey sa waay mi ngi ci motaa parce que dañoo jàpp ni ñoom jaamu yàlla la wala iyaazu billah kon bokk na ñoom ci seen pas-pas yi lii tuddee euh, ismatul aimma dañoo wax ni seen comme seen njiit yi yi ñuy mbubboo te ñooñu sori leen ñuy isna achar ñu ni ñoom ñépp danoo am maqaamay yonent bi du ñu juum du ñu fàtte euh, lu ñu wax noonu la ñu amaat yeneen pas-pas ci ñoom ëppal ci ñoom lool am na ci ñoom ñoo xam dañuy wax ni ñoom ñoo gën yonent yépp ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa am na ci ñoom ñoo xam ne ni wax nii bal ñoom ñëpp sax ñoom ñëpp comme ni ko al majlis yi waxee ci bihaarul anwaar mooy ñoom danoo xam xëyb li ñëwagul li li yàlla ni yow yonent bi sax xamoo ko ñoom ñu ni ñoom dañ koo xam yàlla moo ni qul la aalamul xayba loolu la wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam walaw kuntu aalamul xayba la staktartu min al xayr wa ma masaniya suu ñu ni ñoom xam nañ xayb danoo gëm ci ñooñu ñuy wax ni ñooy seeni aimma ñu ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy ñooy yore kaw kawni bi ñoo yore àdduna bi ñoo koy dun ñoo koy doxal su waree taw ñooma su waree sedd ñooma su waree tàng ñooma ku war a dee ku war a dund organisation ba ci seen loxo la nekk te ñan ñan koy wax kat faatu na ñoom ña nga ci biir bàmmeel kooku nu mu ko mën a yore bokk na ci seeni pas-pas lu ñuy tuddee as sujudu ala turbati karbala gis nga ñoom bu ñuy julli moo tax yooyu dina bokk ci màndarga yi ngi leen mën a xamee ba ba moytu ba man leen a moytu daw koy sikki sàkka ndax chia la wala du chia jéemal a fexe rek ba julleeg moom nga ciy bàyyi xel du sujjóot ci suuf si nii du sujjóot ci taaba ci ci yii ci basan yii déedéet am na suuf soo xam ni yeesaa dañ koy def comme genre xeer yeesaa genre mouchoir lañ koy def dañ koy génne teg ko ci la ñuy sujjóot am na sax ay genre sujaare yu ñu defar yoo xam ne fu ñuy war a sujjóotee fa lañ def suuf sa kaste ko parce que dañ ci am pas-pas danoo ni amul benn suuf su sell du suufu Makka du suufu Médine du beneen suuf lu du suufu Karbala Karbala mooy fan mooy dëkk ba nekk ca Irak fa nga xam ne fa lan reye Xuseyn tey boo demoon ci seen jàkk bu ñu leen ne jàkka la demal nga dugg rek xool kenn ku nekk yaa nga yor sa sa doj te ngay sujjoon su ngeen di fàttaliku xëy na loolu maa ngi xale yi jàpp ma ni ñoo ngi fàttali donte yàggul dara film boobu ñuy wax filmu Xasan ta suñ mbokku Ousmane Diouf traduiroon ko film boobu xam nga Chia yi ñoo ko def. mais moom traduire na ko traduire boo xam ni euh, loola du ca feeñ yow yow yow mën nga koo seetaan ba dem doo jàpp ne kii chia la lu dul ku xam chia lool nga xam ni lu ca cos boo ko xool di nga xam ni lii chia yi la sooy xool film boobu ki ñuy wax Xasan bi mu demee ba tuub di julli bi muy julli boo xoolee ci ab doj la doon la doon sujjoon doj boobu la tuddee turbatu Karbala chia yi ci senegal ak ñépp a ci yem ku ci nekk loolu ngay kiiwee ñu ni màkka ñu ni màkka sellul Medina ñu ni sellul te pourtant ñoom bis bi ne ñu ngi fay dem man kenn nettoo parce que Medina laa jànge université Medina laa génne yeesaa ñoom dañ daa nekk ci jumaa ji jumaa yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu étudiant bu nekk foofu xam na ko dañuy nekk foofu ba ñu noddu ñu génn dem ci biti duñ julli ci ginnaaw imaam bi lu tax parce que danoo jàpp ni julli ci ginnaaw ñii dagoot moo tax ku ci julli ci seen ginnaaw boo demee da ngay da ngay bamtuwaat kon euh, yii yenn la ci seen pas-pas mu bokk ci seen pas-pas lu ñuy tuddee euh, ab tiina loolu mooy lan ñoom nee naan yàlla subhanahu wa taala dafa def ñaari suuf bu sell ak bu bu sobee nee na bu sell bi nag moom mooy bu chia yi bi mu leen waroon a bindee bu sobe bi mooy bu ñeneen ñu dul ñoom waaye njaxas am na ci diggante suuf su sell seek su si ba tax na boo ñu ni boo gisee bakkaar boo xam ni ab yi def na ko parce que leen ko jaxaseeg suuf su sobe si moo tax boo gisee tamit keneen ko xam du chiici def lu baax parce que liñ ko soofu suufu chiia bu baax bi moo tax mu nekk seen maanaam comme li juif yi li yahud yi jàpp ni rek ñoom ñooy chaabullahi al muxtaar ñoom noonu lañ ko jàppee am ci seen pas-pas ñuy tuddee ak taqiya taqiya bu ma la ko doon simplal mooy ak naafiq maanaam dagan na ci seen pas-pas ñoom ngay wax loo xam ni gëmoo ko ak di nëbb loo xam ni du moom nga du moom nga fas ab chii mën naa nekk ci seen biir naan leen man yéen laa àndal nangam kii nangam fekk ab chii la boo ko laajoon ci xolam koo ñoo gën a bañ mu ni ñii nga xam ne kenn du ci ab mën na nekk ak man ngeen ko def sax ab imam muy jiite man ngeen ko ne ko yow yaay def waxtaan wala yaay jàngale mu jaxasoo ak yéen bu ngeen doon wax ci chia man na cee ànd moom di nga ñi chia ya mais fekk moom ci boppam chia la parce que fa am pas-pas bu ñu gëm muy pas-pas ak naafeq ak taqiya dañuy wax ni loolu min daruriyaati madhabihim lu munta ñàkk ci seen pas-pas yi la il faut que ñu jëfandikoo taqiya moo tax euh, ñi ciy nëbbatu dina jafe nga xam leen ñi ciy nëbbatu dina jafe nga xam leen ñi ci nëbbatuwul nag moom xam leen lu yomb lay doon xam leen lu yomb lay doon mu bokk ci seen pas-pas yi mooy euh, li ñuy tuddee ak tatbiir biir mooy la mooy ñuy simmee ko def yaramu neen jël ay weñ wala ay paaka wala ay chaîne boole ko takk ko di dóor seen yaram yi dangay gis ko ci sol lu weex tàll day dóor yaram bi ba mu xonq cur dangay gis ko def yaramu neen day dóor yaram yi fépp di dagg loolu ñu ngi koy def ci bisu Ashura bisu tamxarit parce que nee nañ bis boobu la ñu rey Xuseyn ca karbalaa kon ñun il faut que ñu méttitu loo dañuy jël ay kii di dóor seen bopp ñu bëri dañ ci dee ci ñoom chaque année tamit lay doon 2023 bii rek fu ci a nekk presque ci àdduna rawatina diggante Irak ak Iran ak yenn kii dañ koy def boo duggoon léegi ci internet bi internet bi rek nga dugg ci booy xool da nga ciy gis ñoo xam ni ñu nekk di dóor seen bopp loolu lay tudde ak biir Cheikhul Islam Ibnu Taymiyya nag dafa wax ni lii ñuy def nii di dóor seen bopp yàlla leen di mbugal ci àdduna njëkk àllaaxira maanaam tuumal gi nu tuumal suñu yaay Aïcha la ñoom di dóor yari yoon ñuy tudde xaddul xadf ci seen bopp njëkk àllaaxira parce que yàlla moom du juum du jaawale bisu Ashura boobu encore muy bisu tamxarit dafa am ci seen pas-pas ñoom dañoo jàpp ni bisu dëj la dañoo jàpp ni bisu naqar la li tax parce que ci lan boom Xuseyn ca Karbala Xuseyn xam ngeen dañ koo tooñ atum 61 boom ko te ñi ko def mooy Ubaydullah ibnu Ziyad mi nga xam ne moo doon gouverneur Kuufa ak Basra ci jamono jooju yabal ñoom eh, ñim yabal la xew-xew ba ñu rey bis boobu su delsee ñoom dañ naan bisu naqar la te xam ngeen ni li wér mooy bisu asura mooy bisu tamxarit du bisu naqar du bisu fet julli ñi liñ leen ci sant leen rek la mooy bu jotee ñu woor ko jeex na ñoom nag bisu naqar lañ ko jàpp di ci dóor seen bopp chia yi nekk fii senegal xam naa ni ñemewuñu ni naar yi dofe euh, ñeme euh, dindi seen yaram yi di dóor wala ñemewuñ koo def ci mbedd mi ñoom li ñuy def bis boobu dañ ciy maye deret dañ ci organiser don de sang pour génne deret moo tax bu ñu ko ci organiser bul jàpp dañ koy def ngir ngir yéene ko sénégalais de déedéet ab pas-pas la ci ñoom kon yii yenn la ci seeni pas-pas waaye daal ci gàttal mbokk yi bëgguma gën a euh, guddal parce que maa ngi ni woon duma weesu quarante cinq minutes maa ngi dem ci une heure de temps euh, waaye li ma bëggoon mu jàll rek te jàpp naa ni jàll na message bi ma bëgg mu leer mooy ñu xam ñan ñooy chia yi euh, ni ñu grave ni leen war a moytoo ñu xam ni encore du yun lay nettali yoo xam ne ay jamono la amoon du yun lay nett yoo xam ne ay réew sàngam la am mais mi ngi ci suñu réew mi ngi suñu dëkk mi ngi ci suñu gox mi ngi boo moytu sax comme ni ma lay waxoon mi ngi fii fu nu soriwul kon nag nañu xor xoddeeku bala ñoo lakkale loolu lañu tàmbali woon loolu lay tëjee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa